bisimilah bu dee laaju mbokk mi mu ne der boo xam ne deru nag la mu bàyyi ko bitim réew ñu defar ko ba mu set waaye nag xamuñu nag ndax rendi nañ nag wa rendi bu jaar yoon wala boog ndax der ba daa medd wala xamuñ ca dara mu ne ndax dagan nañu julli ca déedéet daganuñu juli ca ndax euh, loola la muy tekk mooy laab gi amu fa li nga li nga wax rek mooy der bi wóoruñu ndax laab na wala laabut ndax medd la wala du medd loo xam ne amoo ci dara loola leer nag bu ci julli rawatina nag bu fekkee am na ay moquette am ay julleekaay am am <laughs> nga da allah kon nag dañ laa wax ne la barab bi ngay jullee na nekkal barab bu laab te bu fekkee ne nag wa dafa médd incha allahu rabbi wala réyuñ ko rey ba sariya santaane jël derba kon derba day topp jëmmu ja loolu nag eh, am na tuuti wax ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa wax ci benn xadis ne derde ab derde buñ ko sëbañee ba mu set rek laab na waaye bu dee ci yoonu mari dañ jàpp ne laabuk man caa denc dara la waaye du laa bug mën koo jëfandikoo wala man koo gàddu lu mel ne nga euh, boo demee ci àll bi dañuy defar deru deru euh, bëy wala nangam ba mu nekk lu mel ne ak mbuus ñu di ci denc dara ni ki sa kalpe wala yu mel noona euh, léeg-léeg ñu di ci denc dugub di ko tëj am at wala yu mel noona waaye daal comme yow amoo ben problème am nga ay sijaara ci jamono jamono ju taw féexe lañ nekk dëgg di fekk der boo xam ne xamoo fa mu bàyyi koo xamoo laam na wala laabul nga di ci jullee kooku dugal sa bopp ci musiba la boo jël jaamoo yàlla sa jaamu yàlla gi doo ci am lu doo am xel mu dal kon la gën rek mooy der ba bul ci julli eh, incha allahu rabbi bu fekkoon nag dañ caa defar ay dàll wala ceinture wala yu mel noona su boobaa kon mënees na koo déggee rek hadis bi ne ab buñ ko defaree ba kii mënees na cee jëfandikoo am maa taxaw ci di julli nag la gën rek mooy nga xaar ba am loo xam ne wóor na la ne lii moom laab na amoo ci benn sikk sàkk wallahu aalam bismillah bu dee mbokk mi mu ne nga jox commerçant xaalis ci sartu bu gerte ñoree mu jox la ndàngam ci gerte ndax dagan na tontu lu mooy waaw dagan na <laughs> loolu kay loolu am jaay la rek dara nekku ci incha allahu rabbi léegi nag bul këlkin naan waaw gerte bu ñore lii lañ koy jaayee déedéet ki moom gerteem bu fekkee moom d'accord na ne lii la lay jaayee xalaas jeex na loolu ma jërul di këlkin waaw gerte mën naa am deux cent lay jar mën naa am trois cent lay jar mënoon na ko jaayee nang waaw moom jaayee wu ko loolu <laughs> du gerte gi. Ah, xam na lool xam ne ne mën na koo jaayee deux cent mën na koo jaayee trois cent waaye dem na lépp xaalis ba sartante ne bu gerte ñoree dana ko jox limu gerte boo xam ne kilo bu nekk dana ko defal ñaar fukk lu ci yoonu kenn moomu alalam di ko jaay dara nekku ci kon loolu moom dara nekku ci naka noonu ki bay dugubam moomoom dugubam incha allah bu dugub doon jar cinq cent mu ñëw leb la cinquante mille ne la dinaa la jox nangam ci dugub ngeen d'accord ca loola jeex na loolu mu jëru dikkal kin dugub mën naa am lii lay jar mënoon na koo jaay lu ëpp loolu waaye mu jaayoo ko loolu lii la ko jaayee ndax arrangement mi ngi ci ndax est ce que xam nga ne ba xam mën naa xaar ba booba est ce que mën naa xaar ba dugub ñor côté bu ne daa am daa am ko mu arrangé borom borom alal ji dana ko dimbali buñ ko joxee prix bu baax buñ demee ba dugub ñor dana ko mën a jaayaat ki joxe xaalis waaye bul fàtte ne jëmmi baykat bi tamit da koo dimbali mën naa am tabaski jot na amul lu mu dundale ak njabootam mun leen a teral mun leen def nangam kon boo ko lebalee cent mille francs dana ci mën a tedd dana ko mën a fajal aajo su ko def kenn ku nek daa am loo ciy dàq loo loo ciy gañe loola dara nekku ci wallahu aalam jënd ak jaay la rek bisimilah bu dee laaju mbokk mi mu ne ku nekk ci oto di jàng alquran ba mu yàgg njàppam toj nu muy def xanaa teg kaamil ba ndax dëgganut ci ko amul njàpp muy laal alquran bu dee ñaareel laaj mu ne ku nekk sa palace di jàng alquran ba agsi ci barabu sujoon nooy def mooy xanaa bu fekkee sarte daje na ci yow jublu nga xibla li ko sol laab na incha allahu rabbi te am nga am jàpp yow sa bopp laab nga nga daal di wëlbati ko dem sujjoot mais daal di toog daal ne allahu a sujjoot boo mënee ñaan wala nga ne subhaana rabbil aala wala bu la neexee nga bañ a wax dara wax dara nag moo gën ak ñaan la bara bu nangu ñaan la nga siggiwaat ne allahu a bu fekkee nag da ngaa am ngant ñu xam ne am nga ngant wallahu aalam bisimilah bu dee laajo soxna si mu nekk koo xam ne dafa bëgg a ay meuble wala ay rafetal loolu ñuy rafetale ay nekk xeetu euh, meuble ak mboolem liy rafetal rek kër waaye nee na nga xam ne boo ko laajee sa borom kër ne ko jox ma ma jënd ay meuble wala ay taas day bañ ci misaal nga dem nag ne ko jox ma ma jënd ceeb ci misaal nga dem mu mun laa ñàkk jox mu jox la nga dem jëndi meuble ndax loola baax na déedéet loola baaxut ñaari bàkkaar yu mag a mag mi ngi ci biir bu njëkk bi mooy fen ci bàkkaar yu mag yi la bokk ndax nee nga ko jox ma ma jënd ceeb mu jox la nga dem jënd leneen. ñaareelu bàkkaar bi nga xam ne sa diggante ak yàlla ak sa moroomu jaam mooy xiyaana mooy wor kon wor nga sa borom kër wax nga ko lii dem defe ca leneen te it wax nga lu dul dëgg boole ca te it amel nga amel nga am nga ci bàkkaar bu rëy te loolu bu ko ko sa borom kër xam ci yow bu la wóoluwut boo liggéey nag bul kaas fenn nit boo jëflanteeg moom di ko wax dara muy gis leneen xa yàgg yàgg dana ko xam dara xam ne mën na laa ne ana ceeb bi ma waxoon ne da koy jënd wala ana kafe gi subaa gis nga jënd leneen bu dee ba xam loola ci yow subaa pare na du la wóolooti kon dëggu daal nit ki da koy def ak lu mën am jigéen ñi nañ wattandi ko yooyu góor nag day ñaare bu xasee bu wóolu soxna wóolu na ko waaye bu ko wóoloo dee rek lu ci ëpp du ko wóoluwaat nañ ci nañ ciy bàyyi xel kon loola dëgganut ndax ay kaas ak ay meuble ak yu mel noonu euh, du ay darooriyaat naa nit ki mën naa dund bañ koo am kon nag boo ko laajee loo xam ne bokkut ak lekk ak naan ak yi am solo yi nga xam ne mënta ñàkk yi nécessaire yi bu la ko joxut euh, muñal rek wala nga di ko naxtaan ba mu jox la wala boo amelee sa bopp nga defal sa bopp boo ko mun nga muñ wallahu alam bismillah mu dee laaju sëriñ ibrahim mu nekk nga xam ne dafa biddanti yeewu jamono joo xam ne fekk na jant bi fenk li muy tekk mooy kon faat na waxtu suba mu buy julli suba ndax day xunuut wala déet waaw wax naa ba tàyyi ne julli nim la faate rek boo koy fay noonu ko koy fayee amul ak coppiku julli daal nim la faate booy fay noonu rek koy fay amul dara lu ciy manqué duñ wax ne julli boo koy fay moom nii la waaye bu la faatee moom nee la boo koy julli ci waxtu wi nii nga koy jullee waaye boo ko faatee moom day soppiku nangam déedéet dara du ci soppiku loo ci waroon def rek da nga ko cay def wallahu a'lamu euh, loolu mooy tekki ne kon incha allah buy julli suba day xunóot def la mu war a def lépp bu dee ñaareelu laaj bi mu ne menn mbokk ngi nii xam na laaj bi na xaw naa xoromu Euh, daa war di génne asaka li muy teg kon mooy am na astuut mu dem dëkk ci kër nijaayam nijaayam di joxe dépense ak lépp nijaayam sëriñu daara la boo xam ne yeyoo na ku ko dimbali ni ni mboolem sëriñu daara yi rek daanaka lu ci ëpp yàlla na ne yàlla yërëm mu ne ndax sañ naa génne asaka jox ko nijaayam te xam na ne nijaay mooy joxe dépense bu génnee asaka jox ko ci missal bu génne woon cent mille franc jox ko ko lii asaka la ne jaay da koy jënd waat dépense te moom daana a lekkaat foofa nag ci la fi la laaj bi xaw a xoromu waaw ku ñàkk bañ war koo jox asaka nu mën a wëlbatikoo di dundal koo xam ne am na ba war a génne asaka loolu xaw naa andi tuuti ak lënt li xel nangu woon mooy waa ji bi mu ko wóoree ne sama sama nijaay ji amut ba mi ngi eh, yor ay dongaam bu sañoon ñu dimbali ko yaakaar naa kon kooku bi mu ñëwee lu bon bon waroon nay joxe dépasse moom waaye nag ñu di la ñu gàddu la te yow mi ñu gàddu am nga ba war a génne asaka loolu xaw naa am tanaaxut wala kulli xaal euh, bu dee tontu laaj bi li mbokk mi bëgg xam ndax bu génne asaka jox nijaayam te nijaayam mën naa am da ciy joxe waat dépasse te dépasse mën naa am moom dana ci lekkaat ndax loola dagan na tontu li mooy waaw loolu dagan na incha allah jël na asakaam la ko sariya santoon def na ko xool na ku ko yeyoo jël na ko jox ko ko. jeex na ci problème am jeex na mi ngi mel nga génne woon asaka jox ma gannaaw bi ma jënd ci gura ñëw jox la <laughs> loola moom dagan na ndax asaka ba ma ko joxee léegi maa ko moom su ma ko moomee ba wëlbatiku nag di ci toggaat ab añ a ah, yow nga gàtt xel gàtt xel gu toll ne comme yaa am nga ba ñëw jël asaka di ma jox au nga jël dépense bi yan waat ko ndax ki am li ma waroon def mooy jël asaka ne ni jaay bàyyil ma joxe dépense wala boog baal su ma joxee ñaari fan nga joxe benn waxala kulli xaal daal mën naa jox asaka ca nijaay ja ndekam bokk na ci ñi ko yeeyoo te ñaare jàngalkat yi lu ci ëpp yeeyoo nañ ko lu ca nijaay ja defaat nag loolu moom amul solo wallahu aalam bisimilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi wax ne day dégg ñuy wax ne leble lu am solo la lool bari tuyaaba ba mën naa ëpp tuyaaba sax maye mën na ta jamono ji ñu ci ëpp boo leen leblee duñ fay waaye ñooñu njóobeen yi rek ñoo koy def euh, dëgg la leble mën naa ëpp tuyaaba fay ndax lan ndax leble day encouragé nit ki ci liggéey waaye comme ni njóobee nii def bëgg lu yomb waxtu wu jot di tàllal loxo dimbali ma ci lii sama waa kër ga lekkuñ te duñ def dara nag loola Seydina Omar da koo bañoon lool amoon na xiir goo xam ne sax da leen ci daa caw ab yar ñi tàyyeel lànk toog bëgg lu yomb wala yonente bi sallallahu alayhi wasallam na jullit ñëpp baax nañ waaye jullit bi yëngatu day man moo ma moo gën nee na loxo bi laaj loxo boobee de loxo yëpp ko gën loxo yi joxe yëpp ko gën kon gis nga maye mën naa de ko nit ki bu fekkee heure bu ñàkkee da nga ñëw may ko loola mën naa bañ a sawar waaye leble nag mooy xam na ne lii nga koy jox da ko fas yéenee fay kon dimbale nga ko génne ko ci situation bëgg na euh, tey ab dépense amu ko nga lebal ko juróomi téeméer kon fañ nga aajoom dimbale nga ko ndimbal lu rëy waaye tamit euh, yaa ngi koy soññ ci liggéey mooy lan mooy xam nga ne lii mayoo ko ko dang ko ko lebal su ko defee dana góorgóor ne ah man kat war naa góorgóor la ngir ñaar war naa góorgóor ngir bu am dépense tey war naa góorgóoru fay bor bee ñu ma lebal kon tuyaabu ju rëy moo ci nekk bu dee nag nit ki day ñëw di la leb te loola fay kooku ma kenn sëntu nga di ko nga di ko lebal kooku boo ko mënee dimbali baax na boo ko mënta dimbali na nga bàyyi waaye néewuñ kenn nag faaw da ngay leb da ngay leb ku ñëw rek lebal ko déedéet man ngaa seetantal xool ñi jub ki jubut ku ñëw nga defal ko ngir yàlla boo liggéey boo xamee ci moom jikko ju rafetut boo liggéey sañ ngaa bañ a jëflanteeg moom wallahu aalam bismillah bu dee laaju mbokk mi mu ne ku nekk ci biir julli buy ñaan ndax mën naa tudd naan barke sëriñ di wala déedéet julli bul ci dugal dara dara dara dara lu bokkut ak yàlla yi kese kese saa borom nee na lu ci nit ki dugal lu ci bokkul rek su boobaa mu bàyyee la ko wax dëgg yàlla comme yow bu la na ngay xaar ba julli ba noppi bu la neexee nga ñaan ñaan yu la neex ne barke ku la neex waaye ci biir julli daal julli tudd turu yàlla sujoot def taaya ñaan sa soxla ñaan ko sa sa digganteeg sa borom nga sëlmal incha allah julli moom boo koy def daal wattandikul di ci dugal dara waxantumaak nag benn sax li saddi sariya waaye waxuma la ngir li saddi sariya sax mooy ëppal gi nit ñi ëppal léegi danañ dem ba seen jaamu yàlla yu bari dañ koy yàq ndax dañuy jaawale wàllu sëriñ ak wàllu tariix ak wàllu jaamu yàlla bokkuñu nit ki da ngay def la part des choses ni ko tubaab bi waxee yàlla yàlla la ma nga nële moom xaalix la aji bind la kenn siqatoog moom dara amul kenn ku bokk ak ngóor ak wee dara wala kenn ku ci sañ a def dara li sëñ Tuubaa noonu yàlla buur la boo xam bu xàccee yaram bi kenn ku ko sañ a téye nga cey wax amut kenn ku nekk li ngay wax kay mooy yàlla bu mu tegu sama kaw ak daraja joo mën a am ñu xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne moom la yàlla yónni mu nekk ne ca côté bee ginnaaw suñu boroom moom moo féete kaw lépp ci mbindee fi yàlla yi ñu xam xàmmee jaamu yàlla buñ ne jaamu yàlla la ngir jaamu yàlla gi baax faaw da koy defee ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam santaane sallu kama raaytumuni usalli boo bëggee sag julli baax da ngay jullee ne yonente bi santaan heure boo ci dugalee leen lu ci bokk ndax dama ciy jàng xasida wala ndax damay tudd sama sëriñ naan barkeem ak yu mel noonu heure boo ko defee rek yàq nga sag jaamu yàlla léegi nag boo ba noppi am na leneen am nga sa diggante ak sab sëriñ am nga say xasiida am nga sa leen loola leneen la nga di ko jàng am nga say ñaan booy ñaan nga def la waaye biir julli daal ñaanal sa soxla bul tudd turu kenn ñaanal sa borom mi nga toogal di seqal di jàkkaar ndax eh, tawasul mooy lan tawasul mooy damaa bëgg a dem baram naa nga ma jaar fee loolu mooy tawasul maanaam damaa bëgg a jaar ci kii ngir lii gën a baax léegi nag yaa ngi jàkkaarloog yàlla bi nga amee bi nekkee ci julli yaa ngi audience dafa mel ne da nga ne suñ borom dama laa soxla mun la bisimilah ñëwal toog nga toog léegi jërutu ngay tudd kenn booy ñaan ñaanal sa digganteeg sa borom rek boo sëlmalee nag nga doog a xam ne leneen leneen la nit ñi nag dañuy jaxasa rek wallahu aalam bisimilah bu dee laaju mbokk mi mu ne nekk ci biir julli buy ñaan ndax mën naa tudd naan barke sëriñ di wala déedéet julli bul ci dugal dara dara dara dara lu bokkut ak yàlla yi saa borom nee na lu ci nit ki dugal lu ci bokkul rek su boobaa mu bàyyee la ko dëgg yàlla comme yow bu la na ngay xaar ba julli ba noppi bula la neexee nga ñaan ñaan yu la neex ne barke ku la neex waaye ci biir julli daal julli tudd turu yàlla sujoot def taaya ñaan sa soxla ñaan ko sa sa digganteeg sa borom nga sëlmal incha allah julli moom boo koy def daal wata ndikul di ci dugal dara waxantu waxantumaak nag benn sax li saddi sariya waaye waxuma la ngir li saddi sariya sax mooy ëppal gi nit ñi ëppal léegi danañ dem ba seen jaamu yàlla yu bari dañ ko yàq ndax dañuy jaawale wàllu sëriñ ak wàllu tariix ak wàllu jaamu yàlla bokkuñu nit ki da ngay def la part des choses ni ko tubaab bi waxee yàlla yàlla la ma nga nële moom xaalix la aji bind la kenn siqatoog moom dara amul kenn ku bokk ak nguuram we dara wala kenn ku ci sañ a def dara li sëñ Tuubaa noonu yàlla buur la boo xam bu xàccee yaram bi kenn ku ko sañ a téye nga cey wax amut ku nekk li ngay wax kay mooy yàlla bu mu tegu sama kaw ak daraja joo mën a am ñu xam yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam ne moom la yàlla yónni mu nekk ne ca côté bee ginnaaw suñu boroom moom mu féete kaw lépp ci mbindeefi yàlla yi ñu xàmmee jaamu yàlla bu ñu nee yàlla la ngir jaamu yàlla gi baax faaw da koy defee ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaane sallu kama ra'aytumuni usalli boo bëggee sag julli baax da ngay jullee ne yonent bi santaan heure boo ci dugalee leen lu ci bokk ndax dama ci jàng xasida wala ndax damay tudd sama sëriñ naan barkeem ak yu mel noonu heure boo ko defee rek yàq nga sag jaamu yàlla léegi na boo jullee ba noppi am na leneen am nga sa diggante ak sab sëriñ am nga say xasida am nga sa leen loola leneen la nga di ko jàng am nga say ñaan booy ñaan nga def la waaye biir julli daal ñaanal sa soxla bul tudd turu kenn ñaanal sa borom mi nga toogal di seqal di jàkkaar ndax eh, tawasul mooy lan tawasul mooy damaa bëgg a dem baram nangam ma jaar fee loolu mooy tawasul maanaam damaa bëgg a jaar ci kii ngir lii gën a baax léegi nag yaa ngi jàkkaarloog yàlla bi nga amee bi nga nekkee ci julli yaa ngi dafa mel ne da nga ne suñu borom dama laa soxla mun la bisimilah ñëwal toog nga toog léegi jërutu ngay tudd kenn boo ñaan ñaanal sa digganteeg sa borom rek boo sëlmalee nag nga doog a xam ne leneen leneen la nit ñi nag dañuy jaxasa rek wallahu aalam bisimilah waaleykum salaam bu dee sëriñ bi Thiam noo ngi koy ziar ab laajam ñu ngi koy ñaan boo liggéey bu ñëwee mu dugg ci laaj bi directement rek bañ a nuyoo guddal ñoo ngi ko koy ñaan ndax daanaka nuyoo bi ak kii bi xaw naa bari lool ñi ngi sant nag ci ñaan yi yëpp waaye kom jotaay bi waxtu amut nañuy tënk rek xam nañ yéen a jàng lépp rek ku ñëw rek ne la maa ngi nuyu ñëpp daal tàmbale laaj incha xam nañ yéene yëpp kenn ku nekk li ngay ñaan ak yéene lépp xam nañ ko. Euh, bu dee laajam mu ne koo xam ne yaramam day metti mu am lum ca taf ndax daa am xeeti band xam ne da koy def sa yaram léeg-léeg bu fekkee sa jeune day metti wala sa nangam mooy ku ko def di sangu janaba nu muy def waa da koy dindi dem sangu janaba ba noppi bu ñëwee euh, tafaat incha allah da koy dindi ndax band yooya euh, ñaare lu bari lay doon da koy am kon nag bu sa yaram di metti benn da ngay dem sangu ba noppi bu dee war ngaa sangu janaba kon waroo koo taf da ngay sangu ba ñëw boo noppee doo koy taf bu yàlla dogaloon nag Euh, nit ki taf ko ba noppi mu def luy waral sangu jaraba ndax liy waral sangu jaraba du joteeg soxna mën naa tëdd gént ni ki mu tëdd nelaw gént man yu génn ci moom su boobaa war naa sango su boobaa kon da koy dindi bu sangoo ba noppi dem jëlaat beneen taf wala mu taf booba bu fekkoon nag amul benn booba dong la am te bu ko dindee sangu ji bu ñëwee bu ko tëfaatul mu indil ko jafe-jafe yu metti te amul feneen fu mu ko mën a amee ñu xam ne kon booba lor la incha allah waaye lu ci ëpp nag loola ak bànd la boo yore boo xam ne boo teppee mën ngaa tafaat beneen wallahu taala alamu sawaaba bisimilah bu dee laaju mbokk mi mu ne kuy jàng xasida ndax bu la nit nuyoo nooy def loo mën a jàng bu la nit nuyoo da ngay dagg loola ne ko waaleykum salaam boo ko defut da ngay am bakkaar ndax fay nuyoo dafa nekk farata wallahu alamu moo xam na ngay jàng moo xam da ngay wérd bisimilah bu dee laaju mbokk mi ñu ngi koy ñaanit buy laajati moom mbokk mi na laaja laaj bu leer nañ ñi ndax daa mel ne laaj bi bëri na ay ngelaw ak ay yëngatu lool mooy benn ñaareel bi xaw naa gudd lool sax dëgg yàlla surtout laaj bu njëkk bi li mu bëggoon wax lu yomb la waaye guddal na ko lool wax dëgg waxtu jot ñu ngi soññee ci laaj yu guddi yi ñu ngi ciy soññee nañu ci dimbale bu baax a baax ndax li mu bëgg a laaj mënoon naa nekk 30 secondes rek mooy ndax dana dagan su ma dendeeg nit palaas ñu bokk lenn lu ñuy jaay moom bu jeexalee nit ñëw di jënd ci moom dara mu ñëw yónnee ko sama place jaay ko client booba loolu lu gàtt la boo ko waxee benn yoon rek jarut baamuwaat daam ñoo xam bu ñuy laaj dañuy gudd di ko baamu di ko baamu ñu ciy bàyyi xel xam ne temps lu manqué manqué manqué la ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax waaw la gën ci ab jaaykat mooy loo amul bu ko jaay te bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba ba laaj na ko ne ko man dama ab jaaykat laa le léeg ñu ñëw euh, ci misaal ñu ne ma am nga euh, téléphone galaxi S3 man du ko am waaye ndax dana dagan nag incha allahu rabbi ma jaay ko ko te fekk awma ko ma dem wëri ko yonent mi ko déedéet bul jaay loo amut kon loolu mooy cosaan li kon daal lépp loo xam ne nit ki amu ko lëggan rek mooy bañ koo bañ koo jaayante boroom xam-xam yi nag biñ ko bi ñu leeralee xadis booba dañu wax ne bu fekkee da nga ko koo bëgg a jaay njaay mu fasu moom xaraam na loolu la yonent bi tere man am nga nangam nga ne ko waaw mu jox la ba ba mel na da koo jënd mel na jaay na la jeex na nga doog a dem di ko wëri nag su boobaa loola xaraam na am na ñuy liggéey loola ñoo xam ne amuñ place amuñ dara dañuy taxaw ci kii bi rek lu loo bëgg nangam waxante ba njaay mi fasu ñoo doog a dem wëri ko man mën nañ ko wëri mën nañ ko bañ am sax amma bu fekkee nag nangam bi am na mu ñëw ne la am nga nangam te xam nga ne moom lii rek la bëgg nga ne ko man de jeexal naa ko waaye boo kii de mën naa la ko wutal mu ne waaw taxaw nga wut ko ñëw andi ko ngeen waxaale nga jaay ko ko loolu moom dara nekku ci dagan kon nag lëgën bu dee ci yéen ñaar ñii bu ñëwee am nga nangam nga ne ko booba jeexal naa ko waaye da nga koo saal nga ne ko mun a nangam nga ne ko xaaral daal di yónnee ci palaasu diw mu am ko kooka yéen a ngi liggéey xamante ngeen da ngeen koy jëflante moom it da ko da la koy def incha nga jël loola ñëw wan ko ngeen waxaale juboo mu doog lay fay loola dagan waaye daal li ma ta wattante ko mooy jaay ko ba njaay ma faso nga xam ne mel ne na daal jaay nga ko nga doog a rek yónnee doog euh, wala nga doog koy wari loolu daal moo mat a wattandiku wallahu taala alamu sawaab donte am na ñu ko dugal nag ci wàllu salam incha allah wallahu alamu